Bismillahirrahmanirrahim. may rahim aduna war ngal kep man Aysatu Penda Diop di ci wat di len andil ay leral di ñaanal ñepp di ñaan yalla mu ne mbas mi fi nek ni yalla genné ko fi ak jamm ndax bi mujj wax ni fekk na mbass mi mi ngi fi won mais yalla def na ni mu ci wat ñuy ñaan yalla borom ñuko di ñaan yàlla sun borom tam yàlla musal ñu ci képp koo xamante ni mu ne amoo ko yàlla muccal ñépp may ñu wér may ñu wérle may ñi nga xam ne bitim réew lañ nekk yàlla may leen jàmm delloo siwaat leen ci jàmm yàlla dàq mbas mi ba ku nekk fa nga nekk di liggéey yàlla delloo siwaat la sa sago mooy nga jotaat sa liggéey ñi nekk ci ndog-ndogu am liggéey ñi feebar ak ñi am gàllankoor ñépp muy biir réew bitim réew mi ngi ci wat di leen andil ay leeral ci nga xam ne nañ ci waxtaan ci jaga di première dame loolu dañ ci jotoon a wax waxon nañ ci ba confirmer ko leeral ko waye dañu amaat ay firnde yu ñuy leeralaat dañuy waxon rek dañu wat di ko moy. euh dafa nek jangoro bo xamanteni mu ne luy dem di ñew la parce que mom mimul ne mu ne yaram bi dafa jagadi waye dafa taxaw ni journaliste bi dégg naa li nga wax dégg naa tam li ñuy wax waaye musul min ne moom yaramam dafa jagadi te mu ne jagadi boobu lu am la ndax bu la jàppee daf lay am yoo xam ne daf la koy def lii dina tàqalik sa sago lee dina la andil ay ndog-ndog leneen li ci des tam dina la baare ci bépp fànn boo xam ne yaa ngi ciy bëgg a dugg yaa bëgg dem wala yaa ngi ciy dox am na ñoo xam rab mooy comme ni ñuy wax jinne daf leen di nëbbatu dafa saay-saay day nëbbatu ci benn ruq boo demee ba war a dugg ci mbiru soxna mu yàqal la wala boo nekkee ci lu fës mu ba nga dugg ci mën na la bàyyi ba nga dugg ci waaye loo dugg mu yàq ko muy mbiru soxna muy da bëgg sëy mën nga dem ba dugg ci ngoro li ngoro la neex mu yàq wala bu demee ba mbir mi sérieux ba ñu xam ne lii nekk na loo xamante ni tey lu war a mën a am sëy la mu taxaw ci diggante bi yàq ko dina taxaw tamit nga toog ba benn waxtu ëmb nga gént mu yàq ko sëy ak yow yàq ko donc kon mbir rawaan am na ci loo xam ne li maam bàyyi woon fii ba tey mi ngi fi donc kon bu ñu amee loo xam ne ñu ngi koy confirmer rek mooy soxna si mu ngi am tan yàlla na yàlla gën a yokk wéram donc du ñuy ñaan yàlla rek toujours képp koo xam ne yàlla def na ci yow diis diis wala ndok ndok te muy seytaane boo xam ne dafa ñëw ci yow mooy mbiri rab wala mbiri jinne wala mbiri seytaane te benn baat bi la rek nañ koo séddale kon ñi ngi ñaan yàlla fépp waaye nekk rek mu ne rawati première dame yàlla na fu gën a fëgg boppam mu gën a oyof ba yàlla delloosi ko ak sagoom mu ne yàlla may ko jàmm ndax euh, jàmm kenn rek am jàmm ci réew mooy ñëpp am nañ jàmm ndax bu kenn ñàkkee jàmm ci réew mu ne nga ne sama yoon nekk mu ne même ñàkk jàmm googu mu yàggee dal ci sa kaw donc nañu ñaan yàlla yàlla may ñëpp jàmm beneen fànn bi tam ñu ngi bëgg a wax ci wàllu mbirum euh, tey xale bi jaari sow ñu ngi ci waxoon parce que confirmé nañ ko am na loo xam ne une semaine ñu wax ko ci yeneen sit di leeral ne jaari saw mu di ci sagoom la nekk parce que loolu waxtaan nañ ko xëy na fii dañuy leeralaat rek di gën a dëggalaat suñuy kàddu parce que man samay waxtaan yi may waxtaan yëpp dafay am leeralaat parce que damay wax ba pare loolu am parce que ba donte biñ koy commencé di wër bañ ko commencé wër ba tey ñu nit tooguñu ñu ngi nekk suñuy xarafa fuufa di yor suñu kurus di ñaan di génne ay sarax di def loo xamante ni xëy na seeni seen jur ñoom duñ ko yëg mais comme doomu réew mi la tey lépp loo xam ne amoon na ko rek ci réew mi la koy andi ñun bi ñu xoolee ba ma mujjee xool jaari saw man dama ko xool moom moo demal coobare boppam parce que bi naan jaari dañ koo kidnappé ndax Sénégal moom dafa xaw a doy waar ku nekk ak rek version bi ngay indi ak ku nekk rek làmbatu bi dafa bari mais donc man dama confirmer lu leer wax lu leer te boo leen ko bëggee vérifier bu ngeen duggee ci yeneen sites yi di ngeen mën a vérifier loolu parce que am na yeneen ñaari sites yu ma jotoon dugg mais jotoon naa ci waxtaan ak loolu waxtam lu précise comme ni may jàkkaarloog di wax ak yéen noonu laa leeralee parce que li ma xool la ba mu leer ci sama kanam parce que su may seet mën naa ak travers nit ki su ma gisee photoom wala ma dégg ko moom wala ñu am contact direct damay damay damay mën a xam lan lay def su ma ko seetee dama koy gis jaxan donc bu ma ko mujjee gis dama doon gis mu doon def déplacement ci propre grème ba ma mujjee tam ñuy naan kidnapping la dama koo xool xam ne dafa nekk ci sagom donc ba ma demee ba yow des sama révélation tamit dama leen wax ne jaari saw mu ci jàmm te mu ne lépp loo xam ne téye na jaari saw tamit xool nañ li ko tënk ci li nga xamante ni moom la concerné ci li nga xamante ni nam ci moom la aajo ci bëgg-bëgg boppam ak li nga xam ne xëy na lu mu jàpp ci biir xolam la bu ci kanamee nag dinañ dem ba mën a vérifier waat loolu parce que moom moo koy waxalaat boppam dinañ dem ba leeral mbir mi ba xam ne jaari saw ci boppam li mu nekkee mu ne xëy na am na lu ko naqari ci xolam waaye amaana dina ko bëgg fësal wala amaana du ko bëgg fësal mais loolu moom kese la concerné kon bu ko kenn ŋàññ bu ko kenn tamit am loo xam ne da nga ko koy wax am na ay raison yu valable parce que nit ku nekk rek boo amee lu la métti ak noo koy manifester ñii dañuy wax ñii duñu wax ñii dañuy mer ñii dañuy xeex ñii dañuy coow donc moom dafa gisee ni moom fa mu toog mu ne mu am lu ko métti dafay gis ne moom mu dem toog ci bërëb moom moo koy arrangé xëy na ba muy def tamit xalaatul ne woon conséquence bi ak empleur bi mu am tey nit ñi dinañ ko toppee nii parce que il faut ñu toppeeku nii parce que damay dégg ñu naan tey jaar yi waruñu woon coow li waru woon toll nii wax ji dafa bari il faut mu bari parce que doom la comme yeneen doom yi ñun ni ñu juree seen doom yi noonu lañ ko juree te tey njiitu réew moo def état def jël xaalisam jël jaari saw yóbbu ko pour mu gën a yokk xam-xamam te xam-xamam bu ko yokkee tey Sénégal ñoo ci ndamoo Sénégal ñoo ci bénéficier wu ndax dañ naan doomu sénégalais parce que amul beneen nationalité bu dul sénégalaise xëy na tam yëfi xale jàpp na ko parce que jaari saw tey bu génnee bitim réew jàngee ko fa yóbbu xëy na tàmmul génn dem bitim réew mu ngi fay doog dund donc il faut am conséquence yoo xam ne daf koy am ak éducation bi nga xam ne moom leen di jox fii tey bu ñu demee ba gisat seen seen wéyjur yooyu yëpp day nekk loo xam ne dafay jouer moo tax am na ñoo xam ne tey bu ñu amee doom bitim réew dañuy bëgg seen doom ñu àndi ko Sénégal pour ñu def ci moom alxuraan def ci moom loo xamante ni tey fëkk ko du ko yomb mais pour nga dem bitim réew fëkk la dafa yomb parce que boo xasee ba majeur ñoom dootuñ la topp dara dootuñ la contrôler parce que boo demee sa coobaree bopp rek ñoom ñu mën a sonn ci yow parce que dañ naan foo toog yaa fa bàyyi sa sabak donc jaari saw ci coobare boppam la demee ci bëgg boppam la bëgg-bëgg boppam la demee te heure bu namee mu ne nit ñi gis ko dinañ ko gis te dina ko def tam kersa pour mu dellusuwaat pour mu jàkkaarloo ak nit ñi parce que nekk na loo xam ne xëy na am na empleur boo xam ne moom bett na ko jaaxal na ko def na ko tam tiitaange parce que xale attanul yenn yi donc dañ koy leeralaat dañuy joxewaat leeral yi parce que lii waxoon nañ ci bu yàgg donc bu demee ba yàlla def tey mu manifesté wu def nañ ci suñuy sarax parce que ñun lépp lu jëm ci réew mi rek bu koy def muy ci mbiru président muy lu ñuy gis muy jëm ci réew mi tamu bon dañuy jël suñuy sarax def ci dañuy fanaanoo tam di def suñuy ñaan di def lépp li nga xam ne war na ci ba borom manifesté wu parce que am na ci yoo xam ne buñ ko defee forcé borom dafay manifesté wu mu bëgg ko mu bañ ko il faut mu am ci ku mu mas manifesté wu parce que keroog bi may mujj def sama vidéo dama ne dans trois jours jaar yi dina manifesté te manifesté wu na bind na lettre am ministre bi def na signe de vie bind ko ay mbokkam donc dañuy sant yàlla di jullu ci yonante bi sallallahu alayhi sallam di sant tamit di yokk ñaanaat sénégalais yi sénégalaises yëpp di ñaanal ñëpp parce que ñëpp a ñaan ñëpp a jàkkoon ñëpp tam am ndog-ndog ci wàllum ñàkk koo dégg parce que képp kuy ndey rek wala ngay bàyyi lii uboon na sa bopp parce que safaan yi ñu doon wax bari na ku nekk di waxee boor ñi naan dañ ko kidnappé ñii di wax lii ñi donc ñëpp la seen xel yi jaxasoo parce que dëgg yi tamit ñi koy mën a gis du bari donc comme yàlla may nañ ci wàllu xool di seet ku réer parce que yàgg nañ ko def di seetlu réer wala ñuy seet xaalis bu ñu sàcc wala tey nit koo xam ne dafa disparaître yooyu yëpp dañ koy faral di def di yëngu ci ñaan ak seet donc lépp loo xam ne ñu ngi koy seet di ko def listixaar wala ñu koy seet jaxaran à travers contact ak nit ki yooyu yëpp day faral ñuy gis muy ci pettaaw muy ñuy seet ci kurus wala ñu seet di ko listixaar yooyu yëpp dafa ñuy won lu leer loo xam ne duñu fanaan ne dañoo gént lo xamne suñu bëtt mo koy woné jaxran parce que à travers sunu contact ak borom donc dañuy gis mu lepp li nga xamanteni borom mu ngi ci nek wala mu ngi koy jëfé budé lo xamne mu né du baax danañ la dana baax budé tam du baax danañ la wax dana baax parce que mbiru jaari man awma ci won choono pour léral jaari ci lan la nek donc comme ni ñuy wax rek ñun ñi nga xamne ñun ño joté pour wax xeyna amna am na ñeneen tam ño xamne mënon nañ ko gis mais tey ñun ñëpp la ñuy waxal am na ñu nekk ci ginnaaw ñoo xam ne tey ñun ñoo nekk ci kanam ñun ñoo mën a wax ñun la ñuy dégg mais am na ñoo xam ne tey yàlla may ne leen ñoom tam ñu mën a gis mën a dégg ci loo xam ne tey nit ñi dañ cee umpale woon ñëpp jàq ci donc am na ci loo xam ne bu la ko yàlla mayee rek bu nekk loo xam ne dafay jafe ci yow donc am na ci loo xam ne buñ ko demee ba yàlla leeral ko rek dañuy sant suñu borom ndax lépp kàttanu suñu borom la moo ñuy may may may may yoo xamante ni bu ñu toppee dara rek di ko seet euh, dañuy taxaw ci turu yàlla donc am na ci loo xam ne day leer ci ñun du nekk jafe-jafe duñ ko seet ci pettaaw duñ fi nekk di wër dara suñ borom moo lañ koy leeralal ci contact bi ñuy def ci moom à travers turam à travers moom mi ñuy jàkkaarloon kon loolu ñu ngi koy sante suñu borom bu baax di ñaan yàlla def jàmm ñu ngi delluwaat tamit euh, di ñaaxaat nit ñi ci mbirum euh, li nga xam ne dañ ko doon waxtaanee ci mbirum Moustapha Cissé muy ñaaxaat nit ñi euh, mu ngi def waxtaan bu intéressant mais nit ñi duñu bàyyi lool xel parce que Sénégal moom bu ñu demee bay wax rek wax ya ñaaw wala dara waxin ba la ñuy seet waaye duñu xool lan la wax ni mu ngi defaat beneen génn bi nga xam ne génn na ko di wax bi wax bi nga xamante ni mooy nañu delloowaat seen xel seen borom te maam Abdou mu ngi ko doon wax da baax Malick tey sunu wasila boobu sunu maam ju baax jooju ñu ngi dellu di di rafetluwaat kàddoom ci anam bi nga xam ne duggee na ko di di mettre en garde nit ñi nit ñi yërëmante ñi nga xam ne yor nañu pour te mën a dimbali ki nga xam ne ñoom ñoo ko tane nañu ñu jël seen àll seen alal ngal la di dimbali ñenn ñi bañ a jël puukare yi oto ay milliards oto ay millions këru ay milliards te loolu lépp fi lañ koy bàyyi donc nañu bàyyiwaat seen xel seen borom. ñu dimbali njiitu réew mi asaka réew mi mën a dem parce que ñu mel ni moom moom la ñu soxla tey pour réew mi mën a dem bu ñu xool ci xadar bi muy waxee wala temps bi mu koy waxee parce que loolu xuloo la woon parce que xuloo am ci maîtrise yombul mais ba tey ci dëggu gi mu taxawoon nekk ci rek ba tey ci dëggu googu la nekk donc nañu xoolaat ci li ñuy def ñu xool nan lañ koy jëfee bàyyi wonewu bi bàyyi tamit defante bi bàyyi wane loo xam ne tam nekkul parce que ñi ngi delluwaat di wax ci mbiru moo géet parce que mbiru moo géet tam yëngal na tey euh, internet bi parce que ñu bàyyi wane loo xam ne nekkul wane lu nekkul loo xam ne yàlla kese nekku ca mooy waral indi lii parce que ñu demee ba tey ñoom ñu nekk ci internet bi di saagante Adamo di wax keneen di wax kii def na lii njoletaal def na le keneen def na le parce que ñoom neen kese la woon parce que lu ñuy woote te doonu yàlla yàllay kese newu ca loolu du dem lépp loo xam ne fondement bi doon suñu borom loolu ay caaxaan la te dëgg lalu ko tey moo gën waroon na nekk jeune bi nga xam ne ku conscient ci boppam parce que nekk na koo xam ne donte am na dërëmam boo xam ne moom moom na ko waroon na tey def ñu mel ni ki ñoom Aziz Ndiaye investir ci dëkkam parce que xaalis bi muy jël ni di ko foyee dëgg la moo ko moom mais nit lépp looy def rek na doon yàllay kese nga def ko ci farata def ko ci sunna def ko fi nga ko war a def su boobaa tey doo ci am daanu suñ borom te bu ëllëgee tam bu demee ba wax am day nekk fekk mu nekk wax bu rafet mais nga yor sa xaalis am nga droit tey def ci loo xamante ni bu ëllëgee kenn du la ci ŋàññi waaye yaa ngi woote di fo woote nit ñi di foo di caaxaan te li ñuy woote dara du ci dëgg li ñuy woote dara du ci dëgg mooy parce que li ñuy wone puukare la nit ñi la ñuy nax seeni bët tey bu jëloon xaalisam boobu investir ko ci tabax tey ay immeuble investir ko tey ci def ko euh, ci wàllu mbiru def jeune sénégalais ñu liggéey wala mu ñëw politique tey bëgg fi doon dara tey mën na koo doon mais man nit ki doo jël sa xaalis muy moogeet moomu di ci doxe caaxaan di ko waxee mbiri jigée mbiri caaxaan xam naa à l'avenir lu muy regretter lay doon parce que nekk na conseil boo xam ne conseil yi mag la ci moom te li ñuy gis ci moom nekk na nit ko am avenir donc bu ñu lëndamal sénégalais yi parce que fii nii lu waay am rek am na ku la ko ëppale donc xaalis boo ko amee da nga koy investir foo xamante ni mu ne moo gën ci yow moo li nga xamante ni bu ëllëgee dinañ ne diwkat moo def fii donc na ko fii bàyyi diw moom moom lii kon nañu fexe ñu rafetal li nga xamante ni moom mooy suñuy am-am di xool fuñ koy dugal di xool tam nan lañ koy defee kon suñu demee ba am loo xam ne ñu ngi koy def rek dem ba coow di ci mujj dëgg lalu ko beneen partie bi may wax tam mooy mbirum Tange Tange Tandian xaw ma ko musuma ko teg bët dama koy gis à travers les médias comme moom ni may gisee parce que ñun ñëpp ci internet bi lañ nekk ñun ñëpp dañuy gisante mais ba ñu waxee mbirum sàcc bi man sama bopp dama ci jël sama temps dama ci jël sama temps seet ko ba ma ko seetee tamit dama gis ni mu ne ndaw si dafa nekk ku tooñ koo xam ne dafa tooñ tey Tange parce que ba ma gisee moom la kamu mu jiiñ ne moo sàcc xaalisam analise rek la def mais kon ñun dañuy xool loolu man ba ma gisee jëmm ci jël loolu xam naa ko jigéen ju gàtt la bu am yax yaa ngi dégg te ñoom buñ ko seetee seen nit ku am koo xamante ne am na gannaaw comme niñ ko waxee jigéen ju waŋ la nit ku gàtt jigéen jooju moo jël takkaayi donc kon bu ñëwee moom muy ñëw naan Tange laa bàyyi woon ci salon beeg moo fi toogoo nag damaa des sama investigation tey bu doon ci yoon la dem tey Tange amoon na droit moom dem tëj lu ko parce que li muy def ñaaw na rafetul Tange nitu média la nit nag ku aj day bañ ku teen parce que tey bu nekkee ci nitu média di nga dégg lu nekk di nga dégg ne yow dëmm nga di nga dégg ne yow góor jigéen nga di nga dégg lu nekk mais moom tam na nekk nit ki nga xam ne nit ku yëg boppam nit koo xamante ne xam nga sa dignité te foog naa moom ci yoon boobu lay dox ba léegi mais boo jiitoo toujours oto yi nga jiitu ñoo lay corne ci ginnaaw am na ci loo xam ne nag sunu borom leeralal nañu ko ba xool ne Tange Tandian nekkul ki nga xam ne moom moo jël takkaayu ndaw soos te ndaw soosu bu amee lépp loo xam ne mu ngi koy waat ci alxuraan mu ngi lakk boppam te li may wax ñeme naa ko xam naa ko te lu ma maîtriser la te ñi ma xam xam nañ li may wax parce que li may wax bërki démb rek justifié ko muy ci semaine passée di wax waxu tey jaari saw nu ma leeree ba ma ne woon jaari saw ci sagoom la nekk noonu la ma leeree ma gis ko jaxaran ba xam ne Tange Tandian mi nekkul ni liñ koy waxal moom moo ko def te xëy na yàlla may na ko daal mu mën a maîtriser boppam parce que ndaw si ni mu ko defee dafa ñaaw toog ci télévision ñu invité nit nga taxaw jox di ko toroxal nit kenn du ko toroxal parce que nit loo jàppul ci loxoom amoo xam-xamu mën koo seet kon bul ne yow laa fi mën nga fi bàyyi nit comme niñ ko waxee parce que man suivre naa leen loolu moo tax ma am temps wu seet loolu ndaw si ko wax nee na ba ndaw si jógee fa mu toogoon ci saal bi jël saagam kër gi ñëpp a fa nekkoon ña fa nekkoon dañu bari am na ci loo xam ne tey bu ci mbirum yoon taxawoon rek moom ci boppam mënoon na ci am jafe-jafe comme yàlla mën nañu may gis-gis ñu mën a xool xam lépp faruñu tange tànjaan xamuñu ko donc nañu ñuy setal deram ci li nga xamante ñun yàlla may nañu gis-gis ba ñu xam ne Tange Tandian képp ki nga xam ne jiiñ nga ko ci wàllu mbirum sàcc boobu du ci dara yàlla mi ma tiim xam na ko man mosuma gis Tange Tandian lu dul ci média donc ñu ngi woon jëmm ki nga xamante ni moo ko jël tey buñ ko gisoon ni jaxaraan wala ñu dugg seen biir dinañ ne la kii la donc am na ci loo xam ne dafa rafetul ci diggante ay góor di uññi woon te sutura ci seen seetu moo gën boobu tey am na retombé boo xam ne rafetul ñu ngi xasante fii ñii di waxante lu bon donc lépp loo xam ne sunu borom lalu ko rek ci nu bon lay mujjee lépp lu yàlla kese newul loolu du dem donc nañu seetaat seen bopp bàyyi di wane loo xam ne nekkul di nax sénégalais yi parce que sénégalais nax kon dafa yomb nga yor sa oto bu rafet di ko dawal woo say nit di leen invité fête di jël xaalis boobu di ko pasar pasare te am nga mbokk boo ko mën a jox am na tey néew ju doole tey tey ni góor gi sidien di def wala keneen ak keneen di dem ci hôpitaux yi di jënd ay machine u jalise wala ngay indi leneen tey war na nekk loo xam war na mën a nekk ci loolu ba sénégalais tey bëgg ko am na mu doon ci réew mi ñu bëggal ko seen bopp falal ko seen bopp kon loolu taxawaay boobu ñoom loolu lañu war a taxawee du nekk ci internet di xasante kii naan moo jël sama lii kii naan moo jël sama lee kii naan lii la kii naan dëgg la kii naan du dëgg kii naan moom moom xaalis kii noonu moomu ko donc ñun yàlla may nañu gis-gis yoo xam ne toujours rek lépp li nga xam ne lalul dëgg buñ ko seetee dinañ xam ne dëgg la bu dee koo xamante na nga soxla sa mbiri kayit mën nañ la ko leeral leeralal comme niñ koy leeralee ci lañ lay waxee say sarax kom tam ni ñu lay waxee say sarax noonu la sa ñaan di génnee lépp lu ci war daañu la ko mën a defal parce que ñuy yëngoo ci seet bi noonu la ñuy yëngoo ci ñaan bi parce que fépp fu ñu mënta nekk rek ak waxtu wu ñu woon a nekk rek bu nit ñi nekké ba ñepp di dallu ñun ci lañuy tamli suñu liggéey nekk ci istaxaar nekk ci mbiru nit ñi nekk ci ñaan donc am ci lo xam buñ ci xasee ba nekk rek muy ya xam da nga am problème keuyit wala sa keuyit dafa yeex wala da nga am problème rap, wala da nga am hémorroïde wala da nga am problème diabète wala da nga am problème tay ndoxu siti ak yenen ak yenen parce que buñ koy lim tam du fi duñ fi jokk di am problème tam ay ndok ndok mu ne am problème tam bëgg dugg ci sey parce que yoy yëpp ñak ko sét ak di tëñëx tëñëxi moy ki nga xam rek day tëñëx tëñëx di dox te xamul fan lay jaar lool lay andi donc ñu ngi wat di wax internet yi ñu ngi ñaanal ñëpp di gëreem ñëpp di sant ñëpp euh, képp ki nga ham mu ngi ñu soxla ci walu ñaan dañ la sétal ba paré set ko ci anam bi nga xam non ko bëggé ci walu istikhara ñu xoolal la ko seetal la ko te loolu foog naan lu dagan la kon nañu seet suñu diggante suñu borom lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ci internet bi wala bala ñu koy wax ñu vérifier ko nit ñi nañuy sàmm seeni jëf méngoo seeni wax loolu am solo donc bu ñu demee ba jublu ci waxaat dara rek di ko leeralaat nit ñi mooy lu ñu waxoon la ba jaare tey ñu jàpp ci loolu di ci génne ay sarax ba parce que yooyu noonu bu ñu koy def day nekk loo xam ne moom du nekk sagoy boppam parce que dañ ko dañ koy forcer à ce mu manifester wu mooy sarax yi ñuy génne ak yi nga xam ne dañ koy def forcer moom dafay manifester wu donc am na ci yoo xam ne ñun duñu ñu bu ñu ko bëggee def bu borom tëlee donte mi ngi bëgg mi ngi dund fu mu mënta nekk dinañ am ci moom ay résultats yoo xam ne dina manifester wu wala nit ñëw jox la ci moom xibaar donc kon am na ci yoo xam ne buñ koy def rek muy antu Euh, sunu borom moo ko nangul boppam donc ñu ngi sant yàlla di julli ci yenant bi di ñaanal kilifa diine yi di ñaanal kilifa aada yi képp ku yeewoo Sénégal ak kon bépp doomu aadama buy dund ci kaw suuf rek war ngaa nemmeeku sa bopp di ko seet lépp loo xam ne bala ngay dugg ci dara seet ko bala ngay songu dara muy yaa xam sa kër muy yaa xam sa liggéey muy fay bëgg dugg boo ko seetee ba am loo xamante ni génnee nga ko ci sarax yàlla mën na la musal yàlla mën musal ci defkat bon wala ci seytaane muy ibilis ci yàqkat ak lépp mu ne sarax dina def lool te sarax dina dindi ay ndog-ndog yi nga xam ne lépp loo xam ne nekk na ci sa dund ak say gàllankoor dina parfois doo egg ci ñaan say sarax dindil la lu bari parce que dañuy ñaan di seet kon xam nañ doolee sarax nu mu toll tey jaari bu feeñee grace à sarax yi nga xam ne dañ koo génnee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lépp nuñ ko wax di saraxe nag di saraxe bëy di saraxe xar comme ni ko maam daan defee parce que lii mystique la boo xam ne nekkul ne dañ koo jàng nekkul ne dañ koo jàngal may may suñu borom la vision bu ñuy am la kon dañ ci sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal Sénégal yépp ku ci nekk foo toog ñu bu doon mën nañ ñëw ci sa kër daañu la jox loxo waaye ñi ngi ñaanal ñëpp am tawféex ñi nekk ci prison yàlla génnee leen ci xat-xat bi ñi nekkul ci njub tam yàlla xiir leen ci boppam ñu bañ a gis suñu bopp bañ a beew lépp li nga xam ne tam nañ koy am ci alal yàlla xiir ci ñu koy def fi ñu ko war a def di ko def fu baax ba beew bañ ñoo dal yàlla may ñu mujj ku rafet ñu ñëpp ñu rafetal tey rafetoo bañ a uñiwante sutura bañ a jéppiwante bañ jaxasoo daal parce que àdduna bi dafa jaxasoo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yéen seen site ñu ngi leen di ñaanal parce que ñu ngi bëgg yàgg ak yéen ay ati at ñu ngi leen di ñaanal saa su ne yokkute di la ko ñaanal yow Assane yàlla defal la jàmm lépp li nga xam ne sóob nga ko rek mu ne yàlla dimbali la ci ba mu nekk ay may-may yoo xam ne mu nekk yokkute nekk wér ci yow parce que macha allah nit ku baax nga da nga disponible à chaque fois bu dara yëngoo ci réew mi da nga ñëw laaj ma lan moo ci sama xalaat donc yéen ñu ngi leen di ñaanal ngeen yokkute ca kaw ca kanam ci barke suñu borom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke nit ñu baax ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar yàlla na yàlla def ci Sénégal jàmm. may ko ñi nga xam ne ñu ngi fi yeewoo ak ñi fi yeewoowul def ci àdduna bi jàmm ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp di leen jox suñu numéro téléphone muy 77 376 31 52 fépp fu ma mënta nekk ci àdduna ku ma mënta woo rek mu ne di nga ma jot maa ngi Sénégal maa ngi Dakar donc ku ma soxla rek woo ma ci numéro bi boo ma oyee incha allah daañu jokkoo ñu jëflante ci anam bi nga ko bëggee muy ci wàllu ñaan ci wàllu alxuraan. ci walu suuf bu ñuul ci walu da nga bëgg faju ya xam da nga tële ya xam da nga am gàllankoor hémorroïde ya xam da nga fièvre benen fièvre lepp lu mu ci mënta doon rek danañ la ko wax bu dé mbiri wolof la wala mbiri tubaab donc ñu ngi ñaanal ñepp di ñaan yalla li nga xamanteni amon na ci jaari yalla gëjël ko fi lool parce que ñepp jaxoon nañ ñu ngi sante yalla di jullu ci bi yalla teggit ñu ñu jërëjëf sante nañ ñepp gëreem ñepp